mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu pasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew di wettalikoo leer ak jamono rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen yi boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci kartanal yàlla ñu fas yéene sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu yedda yi ci koo xamee na nii dañ koo fase loon naa la ne la danaa la ci wax dara tey ma lay xamal ne yedd yi daal ci jigéen ñi ñeenti xeet la ñeenti façon la yedd nag sa jëkkër génn àdduna nga koy ténji wala sa jëkkër fase la nga yeddawu naka jekk bi lislaam ñëwagut sax ci ahlu jaahiliya dañ koo fonkoon musuñoo foyee yedda wa kaanat il iddatu maarufatan fi l jahiliyati wa kaanu la yakaaduuna yatrukunaha jaahiliya yi daal mosuñoo bàyyi xel di ko bàyyi dañ koo fonkoon bi lislaam ñëwee nag mu gën a saxal loola seddali ko ne gépp jigéen koo xamee na nii jëkkëram wéet naag moom door koo fase faw mu yeddawu bu jëkkëram dee faw mu yeddawu mottali kul rega ak moom moo xam karaf nañ moo xam xarafuñ ndax fukkaaw yi dañuy wax ne almawtu kat du xool yi moo tax yedda yooyu yëpp ñeenti façon la am ci jigéen ñi jigéen goo xam ne wala jigéen ñoo xam ne dañuy yeddawu ci reegal dañuy gis deret am ñu koy gis par weer am ñu gis par ñaari weer am na ki ñoo xam ne tamit seen régal normalut rawatina booy naani doom ngir bañ a am doom pour sa régal di normal dana xaw a doy waar may wax toujours ne comme danga nga bañ a am doom kay bul naani doom waaye lu ca mën a am daal ku yeddawu ci régal danaa la wax na muy yeddawoo wax la ku yeddawu kuñ fase nga xam ne gisagut deret ngir ak ndawe wala gisatu deret ngir ak mage wala yeddaay koo xam ne dañ koo fase fekk mi ngi ëmb wala yeddaay ku jëkkëram génn àdduna wan ko gannaaw moo xam xaraf nañ moo xam xarafa guñ nu muy ténjee yëpp danaa la ko wax képp koo xam ne jëkkëram da koo fase fekk ma ngay gis reegal bu jëkkëram fase ko daal balaa mën a sëy ci jëneen jëkkër balaa yedda mën a jeex ci jëkkëram ji mu teqalikoog faw mu gis ñetti reegal moom la alquran ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru'in suratu baqara aaya ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom ñett yàlla ne ñuñ fase ña nañ muñandiku ci seen bopp bala ñu amaat jeneen jëkkër ñetti réegal xuru la alquran wax jamu xuru fuqaaw yee nag wuutee ci xuru jooju mooy lan ñu ne mooy laab ga laab gi dox ci diggante ñaar réegal yi moom la ñenn ñu ne déedéet xuru daal sax mooy réegal ga ca boppam kenn ku ne ci ñoom nag ah da say tegtal ci ne ñu ne laab gala nañ ko sentetal ci alquran ak ci sunna ñu ne mooy tilim tilim ga di reegal ga indi nañ seen ay texte ci alquran ak ci sunna imaamu Shawkaani boo demee ca Naylul Awtaar dafa wax ne ñi wax ne quru daal mooy reegal ga ci boppam ci leen jiite mooy amirul muminina Ali ibnu Abi Talib loolu la gëm ibnu Mas'ud loolu la gëm Abu Moussa loolu la gëm Xasan Basri loolu la gëm Ikratu loolu la gëm imaamu Awsaa'i loolu la gëm imaamu Suuri loolu la gëm ak Xasan ibnu Saalih Abu Xanifata ak mbooloo xam ne loolu lañ gëm dañ daal tilim tilim ba ci boppam di regal ga moom ci boppam mooy mooy Qur'an ñu wax ne nag moom mooy laab ga la moom ki leen jiite mooy ibnu omar ak zayd ibnu sabit ak saydatuna aïcha ak sadiq ak baqir ak sahri ak rabiatu ak imaamu malik ak shafii ak mboolem fuqaawu madina yi loolu lañ jëm ibnul qayim na nekk dafa bind ci diggante ñaari wuute bi baxsu boo xam ne bu yaatoo yaatu la waaye lëngal na ne ñi wax ne daal qur'u mooy reegal ibnul qayyim ñoom ñoom la ànd ak ndax dafa wax ne ana ah, lafal qur'i lam lam yastaamil fi kalaami shari'i ila lil xaybi mu ne baatab qur'u gi suñu yonantu bi utiliser ko fenn di ko appliquer ci lu dul régal waaye walam yaji anhu fi mawdiin wahidin isticmaaluhu li tuhuri ñëwut fenn ci benn place buñ gisee yonent bi di ko appliquer ci wàllu set ñu jël kon aaya ja xen ko ca lañ miin lañ miin muy lañ xam ca waxi yonent ba te mooy di ko jëfandikoo ci jamonoy tilim moo tax far ñi ñoom ñu jàpp ne loola la Cheikh Ibnul Qayyim loolu la gëm moo taxoon waaja yore woon deretu jorngel ñëw ci yonantu bi di soxna ah ah ko defee qad qaala rasulullah sana lil mustadaxati da'i salata ayama aqra ikki yonantu bi wax ki yore woon deretu reegal deretu jorngel ne ko bàyyil julli feeg sa deretu reegal gi daggagut foofa kon yonantu bi ca tilim tilim ba ko appliqué ba tey tamit wa huwa sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy suñu interprète ci diggante ñi ak yàlla mooy jotal moo tax euh, euh, luñ luñ luñ mën di jëfandikoo rek ci alquran ak ci hadis ci ay waxam lañ koy mën a kon ñoom loolu lañ gëm ci ci ñooñu ma limal la yëpp loolu lañ gëm waaye ala kulli haal fuutee bi du am solo boo demee ci Ibnu Rushdi ci téere bu ñu tuddee Bidaayatul Mujtahid dafa wax ne ci jàpp ne salaasatu xuroo mooy daal tilim tilim ya ñee jàpp ne timit mooy reegal ya mooy set ya ah ñi jàpp ne mooy set ya te Maalik ci la bokk dangay fase sa soxna ci set su boobaa nag feeg duggagut ca reegalu ñetteel ga man nga koo fay yow jëkkër ja waaye bu xasee dugg ca régal ak ñetteel ga rek nag eh, fay li nga jeex na bu gisee yeneen kër mën naa sëy moom daal feeg eh, duggagut ca régalu ñetteel kon boo jàppee set ga kon daal set na setaat setaat balaa dugg ca bu ñetteel ba rek ca régalu ñetteel ba rek xam mën nga koo fay bu ca xasee dugg nag jeex na mënatoo koo fayleeti ñu gis ne pour u mooy tekki set set noonu lañ ko jàppee ñu jàpp ne nag moom mooy régal carrément ci boppam kon régalu ñetteel ba feeg jeexagut bu boo dugg ca waaye feeg jeexagut rek mën nga koo fay li bu xasee jeex nag dootoo ko mën a fay li te bu gisee neen jëkkër mën naa sëy kon xam nga li seen wute di bëriwut kon Maalik ak ñam ca ànd ak muy Shaafiiyu ak Rabiatu ak Zahriyu ak Aïchatu ak Sadiq ak Baqir ak Sayd ibnu Saabit ak Ibnu Omar ñu jàpp ne pour u daal mooy set set ga boo fasee sa soxna ci set mu setaat setaat feeg duggagut ca lu ñetteel ga bu la neexee fay li ko yedd ga jeexagut soo yéexee ba mu dugg ca régalu ñetteel ga jeex na mënatu koo fay li ñu jàpp ne nag maanaam xuru daal moom mooy tilim tilim Ali ibn Abi Talib jiite leen Ibnu Mas'ud Abu Moussa Hasanul Basri yi ak yi ak imaamu Suuri ak Abu Hanifa ak mbooloo xam ma soo fasee sa soxna ci set waa su ko defee mu regal, gis regal muy benn gisaat regal, muy ñaar gisaat regal muy ñett feek ñetteel booba jeexagut man nga koo fayli boo yéexee ba mu jeex nag mënatoo koo takkaan rek moo ci man dara kon moo tax ma ne la wute boobu daanaka amul solo seen seen seen distance yi duñ soree su ko defee kon nag boo faseetee sa soxna muy yeddawu ci regal fasee ko fu mu mën a tàmbalee commencé gis reegal nga jàpp ne benn reegal ñaari reegal ñetti reegal feeg ñetteel ba jeexagut Malick ne feeg gut ca ñetteel ba Malick ne mën ngaa fay li boo jëlee ak imaamu Saafi loolu la gëm imaam Ahmad ibnu Hanbal ak ñam ci ànd ak ñu ne feeg ñetteelu reegal ga jeexagut nag da nga ko mën a fayli waaye boo xasee jeex mënutoo ko fayle Malick ne moom feeg duggagut ca rek bu ci xasee dugg mënutoo koo fay rek kon dee leen compter régal yi moom la alquran ne yaa ayuhan nabiyu ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum laa tuxrujuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi fahishatin bayina kon foofu yàlla ngi wax ak jëkkër yi di wax ak jabar yi ak képp ku leen di dimbale ca mbir ya digal na jëkkër yi ne nañuy takk ay ya ndax lenn ci jigéen ñi dañoo sàggan du ñuy wattu di takk ay ya kon dee ko laaj foo toll di wérifé idda ja fu mu toll bala nga koo mën a may keneen wala bu ko jëkkër ja bëggee fay liwaat da fekk jeexagut yooyu yëpp man ko caa def kon képp koo xam ne dañ laa fase ngay gis reegal daal fekk gisagoo ñetti reegal sa yedda jeexagut malik ne bu fekk setagoo ñetti set rek bo sété ñetti set nag doonte duggagoo ca régalu ñettel ga euh sayyid jeexagul gu bo xasee dugg sa yedda jeex euh, imam ahmad ibnu hanbal ne feeg régalu ñettel ba gu sayyid yedda gu bo ca xasee dugg bam jeex nak sayyid yedda jeex na kon ku yeddawu ci régal saaté moy ñetti régal wala ñetti set yi rek la wal mutalaqaatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru'in lola jeex ñaareel bi mooy ko ñu fase fekk dafa ëmb ëmb bu bees la bu diggu doomu la bu nekk ca dernier weer ya la moom daal yeddaam mooy am doom moo ci gën a yomb bu xasee am doom rek yedda ja jeex na soo ko fase woon na nam fase fekk amagul doom mën ngaa fayli soo yéexee ba mu xas am doom da ngay takkaat waaye mëntuñ koo fayleeti moom la alquran ne wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadaana hamlahunna foofa nag kon jigéen bu ëmb jëkkëram dee ak jigéen gu ëmb nga fase ko ñoo yem foofa xatte bu jëkkëram dee mu fekk mi ngi ëmb bu amee doom rek bu gisee jeneen jëkkër mën naa sëyiwaat bu jëkkër ji dee woon maanaam fekkoon tey jëkkër ji dafa dee midi midi dix wala midi une minute wala midi deux minutes ci waxin rek mu am doom kon midi trois mën nañ koo maye yow daam jeex na mu jeex bu fekkoon tamit jëkkër ji da koo fase midi midi cinq wala midi une minute mu am doom yeddaam jeex na mën naa sañu waat bu gisee jeneen jëkkër mu maye ko kon foofa ñoo ca yem kepp ko kon mooy ku ëmb su fekkee ne nag dafa ëmb nga bàyyi ko gannaaw dee soo xamoon ñeenti weer ak fukki fan te amagul doom tamit yeddaam gi jeexagut te njëm nga jeexagut de bu ko doon yóbbu ci juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer fukki weer fukki weer ak juróom tamit faaw mu am doom fekk amagul doom rek te te njëm nga jeexagut naka doon tamit boo ko woon feek amagul doom lu mu yàgg yàgg ëmb ba am manam yedd ga jeexu te leg leg jigen dana ëmb ñetti at ñi ñenti at ñi juróomi at kooku kon yeddaam jeex na muy ñaarel ba ñettel ba nak moy ko xamne dañ ko gisa gud ngir ak ndawe wala gisatul dereet ngir ak mage koka mom bu démé ba am ñetti weer ci weeri yi na nako calculer ci yi weer yi ñi calculer qamari la wa bu ko ci gisé ñetti yoon rek ñetti ñetti ñetti weer daal bu ko xasee mat rek euh, yeddaam jeex na soo calculé wut weer yi weer nag boo xeboo ngay compter kon ñetti ñetti fan weer muy juróom ñeent fukki fan mooy gën a limtu mooy gën a wóor su ko xasee mat nag yeddaam jeex na boo koy compter ci weer yi weer nag weer wa mën naa ñëw di fan weeri fan kaamil mën naa ñëw di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñam ca boo ko xamut ba mënoo ko caa compter konteel fan fan weeri fan ba muy ñetti yoon di juróom-ñeent fukki fan sa yedda jeex yow mi nga xam ne dañ laa takk wéet ak yow te gisagoo deret ngir ak ndawe wala gisatoo deret ngir ak mage yaa ngi am juróom benn fukki at jëm kaw buñ la fasee tamit loolu mooy sa yedda su ca xasee yegg rek jeex na léegi nag li ci des koo xamee ne jëkkëram a génn àdduna bàyyi ko gannaaw bu jëkkëram génnee àdduna bàyyi ko gannaaw muy tënji kooku ñeenti weer ak fukki fan moom lay tënji ndeem gor la buy kuñu moom ñaari weer ak juróomi fan bu dee ab taara la woon bu gisee benn yoon reegal sax gannaaw bi jëkkër ji génn àdduna ñu ne set na su gisee jëkkër man naa sëyiwaat su ko defee kon nag moom la alquran wala si ne taw faw na min ko wa yasaruna azwajan yatarabasna day am ko arbaata ashurin wa ashran kooku lal alquran wa kon ñeenti façon yeddawu yi ñoo am wax naa la ki yeddawu ci reegal ñetti reegal wala ñetti cat wax naa la kuy yeddawu ci ëmb ci téñ yi ak ci fase yëpp sippi doom ja rek bu dee ñaari séex la na bàyyi ba ñaari doom yëpp génn ci la yeddam door di jeex su fekkee ne gisagut reegal ngir ak ndawe gisa gisagut ngir ak mage koka timit bu amé ñetti weer ci weeri weer bu ko xamut ñetti fan yi fan di juroom ñent fukki fan yeddaam ya jeex ku jëkkëram génn aduna ëmbut ñent weer ak fukki fan dem gor la bu ku ñu mom ñaari weer ak juroomi fan yeddaam ya jeex kon biram yedd mom jeex na leer na nit nak bu yeddawu dafa am ak yu mom ci yow su fekkee ne tey yeddawu ci tenji ya dee bàyyi ko fi dootoo ti dépense moom daal keroog ba nga génnee àdduna luñ soqatoon dootuñ ko soqati luñ nattoon te soqaguñ ko sax amuñ droit di ko togg nañ ko delloo ca saako ba way doonoon nga donn ko ku bëgg a lekkati làmbal sa poos waaye ki dee moom mënta dee ba pare di joxeeti dépense loolu kon mooy àtteeb ku dee kon boo dee rek dépense wàcc la feeg deegoo dépense wàcc gudd la waaye keroog ba sa rooxo gi teqalikoog sa jëmmu jile so joxe won ndekki dora de joxe añ bi wacc na la so joxe won añ dora de joxe reer wacc na la kon mom ma nga xam fa nga xam rek waaye nag dëkkuwaay ba du wacc gum su fekke ya mom kër gi wala momo kër gi me ya dang ko koo won ta dang don avance par 6 mois wala 4 mois wala 1 an ta li nga defee ci avance bi jigen ña mën nañ fa ténjee ñenti weer ak fukki fan kon foofa lañuy teñje ci kër gi nga nuyu comme teewal nañu luyaas buñ buñ fa mëna tok toog su fekkee yaa moomoon kër ga bala ñoo genn kër ga nañ fa teñji ñent wër ak fukki fan ba mu jeex ñu door libéré kër ga dem su ko défé nak foofa man nañu lijeenti walé ñu koy donoog lu mu bàyyi ci ak doom bu doom xamee sumun ya ñu jël ñu bokk ko ñoom ñëpp su fekkee doom xamul ru booba nañuy bokk su ko defee doom yaa bu ñu fa nekkee góor ñaar jigéen benn gannaaw biñ jëlee sudu sab baay ak sudu sab yaay ndeem ñoom ñaara ngay dund su fekkee baay nekkut fa yaay nekkut fa buñ génnee sumunu soxna yi la ca des lépp doom yaa ko moom góor ñaar jigéen benn su ko defee kon nag ku génn àdduna yaay joxe dëkkuwaay ndeem am nga ko wala nga am moo xam da ko am ci boo tabaxoon moom ko walla nga am ko ci luwaas boo teewaloon contrat ba jeexagutoon kon te la fa des mën nañ caa dëkk su boobaa fa la ñu dëkk buñ ca mën a dëkk buñ ca mënta dëkk lépp ñu dëkk ci lañ mën a dëkk ñaari weer nga teewala nañ fa ñaari weer bu ñuy toxlu door a dem ndax loolu nga ca am loolu nga ca moom waaye nag dëkkal ga moom kon loolu la du la gaaw a wàcc kon ku génn àdduna dépense moo lay gën a gaaw a wàcc ci ci dëkkuwaay ba ngay dee rek la la dépense bi wàcc waaye dëkkuwaay bu moom dana la topp ndeem amoon nga ko sa biir bàmmeel ba nga am fa ñeenti weer ak fukki fan lu ko waral ñeenti weer ak fukki fan yi ni nit ki di ko tënji dafa sosu sosuwaayu doomu adama doomu adama ñeenti fukki fan la am toqantal ma niw ñeen fukki fan lumbu deret ñeen fukki fan suux ni doora war muy téméri fan ak ñaar fukku téméri fan ak ñaar fukku nak soko ko doon jël dafa lay jox ñeenti weer ya fukki fan ya dañ ko cey dolli ngir ak rek limba moo kon fan yi nga amone ci biiru yaay su ko defee ñu dool caa wal roox loolu lañ bëgg boo génnee ci sa biiru yaay ba dugg sa biir bàmmeel soxna yi nga bàyyi gannaaw ñu ñaawlu la ko ténji la ko gungee la ko bu ko defee te mottale ko seen kulëre ak yow kon loolu lañ cay jublu fukki fan yañ ca dolli dëggal dëggal lim ba rek la waaye téeméeri fan ak ñaar fukk mooy quatre mois su ko defee kon nag jamono jooju nag ngay ténji waroo génn génne caaxaan yi booy génn na fekk mu ñor su la fekkoon ngay téen ji te fekk daal yaa ngi amoon ay tool mën ngaa dem tool waaye melal li nga war a mel bu la fekkoon ngay liggéey ci bureau mën ngaa dem ci bureau ba la yonent ba wax daal fexeel foo man a ne rek nanga fanaan si ci kër gi ngay téen ji waaye génn bëccëg dem di doxi sa soxla yaag ci yu manta ñàkk kenn du la ko tere waaye nag da ngay téen ji ñu tëj la jël sa bopp bi nga muuru ko ba takale say nopp yi fo tol do tal sa tànk mbaa doo koy tàllal da ngay ak taka do sangu ñetti fa nak do fot bi sab aljuma loolu lepp ay khurafat la ay neen la kenn jangale ko du Seydunaa Muhammad yow bu sa yére yi ñu ne la seneen bu ne ben yon ngay fot tilim dana la ray di so fi neree toog ni mu ñu ne nag manam ñetti fan ñu ne ben yon ngay sangu ko jégué dang ko xassawal di boo fi naree tëdd ñu ne da ngay àndaaleeg paaka mbaa paaka bi doo xalangu mu jam la nga fekk sa jëkkër jéeg boo fi nekkee ñu ne da war a muur ba muur sa nopp yi mbaa doo tëx balaa ñeenti weer ak fukki fan yaa jeex nga tarde kon yii ay wax rek la ba sa jëkkër génn guddi àdduna daal lépp lu ñu santoon nga war koo def santoon sant nañ la ko lépp lu ñu tere woon nga war koo bàyyi continué nañ tamit tere la ko jëkkër génn guddi àdduna lañ la santoon ngay muuru waaye toog ba mu dee ngay dóor di muuru tarde nga bay alquran di wax ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhi min jalaabibihinna dalika adna an na sa jëkkër génn gudd àdduna yow yonent bi waxal sa soxna yi wax sa doom yu jigéen yi wax mbooleem soxnaay jullit ñi ne leen nañuy sol yére yu jot yaatu muuru mooy li gën a tuuti ci li ngeen xàmmee na yére ya jot na yaatu na fatt su ko defee lii bala bala ko yàlla di sant sa jëkkër génn du àdduna nga war a sax sa néeg di génn lu dul farata te booy génn farata bu mu la fàttiloon a jigéen nga ci sa dox ci sa comportement ci ñi ngay jaxasoog ci ñi ngay toog ak boobu sa jëkkër génn du àdduna muy waqar na fii bu wala tabaraj na na tabarujal jaahiliyatil uulaa loolu moo jiitu sa jigéen ak sa jëkkër bi amma boo tilimee nga sangu nag bala ko yàlla digal sa jëkkër ji génn du bala koy sa jëkkër di digal bala koy alquran digal na jëkkër génnagul àdduna kon yooyu yëpp ay xuraafaat la dëkk boo dem ak xeet woo dem seen aada ci pénji màgget ya ñëw defal nii defal lii mel ni téere buñ jàng fekk dara dañ lay dugal ci coono rek pénji daal du dara lu dul bàyyi taar lu ci colaay ak ci takkaay yow daal bu fi nekk toilette yu tuuroo yenn parfum yi bu fi nekk yi sange sol yenn yër yi bu fi nekk di gànjaru takk say or yi ca lam ya ak yooyaat loolu dong lañ la tere te ca des yëpp muy lu ñuy def bañ la ko digalee sa jëkkër génn gudd àdduna buy lu ñuy war a bàyyi bañ la koy tere sa jëkkër génn gudd àdduna tén bi daal mooy bàyyi taarlu ci colaay ak ci takkaay kese kon mbiram tén ji ma ca yedd woowu moom jeex na su fekkee tamit sa jëkkër dafa laa pase yow am nga droit ci sa biir kër mooy foofa nga war a jàppee yedda su la fase fase mu njëkk daal bul génn kër gi mukk toogal ci kër gi nga jàppee fa yedda kañ nga tara génn mooy boo demee di fat yeneen li góor nag di wax di fi caaxaan nag di tàppaas yaayam mbaa ak di xuloog moom da ngay génn ci biti moo tax yàlla ne yaa ayuha nabiyu ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna lu mu ca teg illa an yaatina bi fahishatin bayna kooku ma ngi ko suratul caaya bu njëkk ba kon nag buñ la fasee nga toog fii naan maa moom sama bopp góor gu la neex fap ci sa kër jëkkër ji dafa lay génne ca biti boo fi nekkee di saaga yaayam mbaa nga xuloo mu di teppaas di ko tappaas dafa lay génne ci biti mais bu loolu xamut toogal nga nga liggéeyee ci sa biir kër jëkkër ji yow jëkkër ji boo ko génnee am nga bàkkaar bu lii taxul moom bu génnee boppam bàyyi na xàqam bu mu fi toog mbokkam yi ñëw gaari camion ne kuñ fase loo fiy defati jamono ji nag moo tax xalifa bu tedd ba Mawlaay Haji Omar dafay wax ne suñu réew mi ñaareel ku fi fase jabar am bàkkaar ñaareel ku fase jabar booy xëy ngoon mu génn kër ga su ko defee bu génn timin mbokk yaay ñëw gaare camion danañ roño roño roñ ba roñ tapi ba danañ roño roñ roñ photo ya danañ roñ ba roñaale porte monte yaak rideau ya duñ fa bàyyi dara buñ manee sax Euh, maanaam salle de bain ba chaise angale ba buñ ko mënoon yóbbuwaal dañ ko yóbbuwaal duñ fa bàyyi dara loolu lépp tamit nag dugut baax kon kuñ fase fase mu njëkk ci sa biir kër jëkkër ca ni foofa ngay yeddagoo ngay defe liggéey ngay toilette di ko romb bu yàggee xelam na caa nekk def kon buy faseem ñaareel muy bàyyil ca foofa ngay defaree sa liggéey bi buy faseem ñetteel nag moo am werante borom xam-xam yu bëri ñu ne foofa ngay jàppee sa yedda ñenn ñu ne déedéet doo fa jàppee sa yedda loola moo ci am werante ci fuqaaw yi ah, ci askinu na min haytu sakantum min wujjikum su ko defee nag foofa moo ci xam werante ki ñetteelu ma mais ñaareel baag première baag ñaareel baag ñëpp ci d'accord ñetteel ba nag ku mel ni Malik dafa ne yaa koy dëkkal yaa koy dundal Abu Hanifa ne doo ko dëkkal doo ko dundal dafa war a génn waaye daal la gën a wér mooy comme sab liggéey la nekk daal na fa defee liggéeyam bu jeexee mu dem beneen góor takk ko bu ko fasee nga dem sànni buum comme ñëpp yow nag booy tënji booy yeddawu man nga di génn ci génn yoo xam ne génn farata la waaye maa ngi lay ñaan booy génn bu mu la fàtteloo ne jigéen nga foo tollu del toilette di romb sa jëkkër ji rek di xeeñ lu neex mën naa am balaa yedda jaa jeex xelam nekk ci yow laa tadri laala laaha yuxdisu baada zalika amran amran jooja nag mooy mu ñëw rek fay li la gannaaw bi nga di dem rek kon nag boo yeddawu tamit wax naa la ko ci ténj ji man ngaa génn doxi say soxla waaye loo ca mën a dégg rek na nga fanaani ci sa kër maanaam jëkkër yi soo demee hadis boobu muslim abu daawuda ak nasaayi wax na ko ah, ci si nga xam ne boo ñu ay daruraat mën nañoo dem maanaam doxi ko su ñëwee ñu del siwaat fañ war a fanaan moo tax boo demee ca muslim imaam ahmad abu daawuda ibnu maaja nasaayi ci hadisu jaabir yi mu ne sama tànt dañ koo fase woon ñetti fase mu génn su ko defee di wuti tàndarma goo xam ne ñaal na ko génn góor da jëng moom tere ko ko mu tudd ko ne ko dellul ci sa kër ga su ko defee nga dem saraxe ji lii nga dem waaye bañ demee ñi laaj ko timit ki nga xam ne mooy yonantu bi ne dafa demoon di juuti tàndarmaak yooyu terewut ko ko kon dañ say déggee ne koon dagan na nga génn dem tool mën ngaa génn dem ci sa bureau yi ak yeneen yoo xam ne nii xaju na ca waaye maa ngi lay ñaan buum la fàttaloo ne jigéen nga lu fàttaloo jigéen nga de ci sa comportement ci ñi ngay jaxasoog leneen la ci ajoog yooyu yëpp nga bàyyi ko ci xel su ko defee tamit nag Jigen nak go xamne ne fay yedd yedday botale nak mom day metti ko xamne ne dañ ko fassé mu bokku ci jigen ñi nga xamne ne bu ñuy nampal duñ gis reegal yedd ja daña dana yag de mu dem dana dem ba feral dom ja wala dom ja genn aduna mu gis yeneen ñetti yoon reegal yeddam dor di jeex waye tank gis a rek ke mënu ko dara waye am na ci jigen ño xamne nak bu ñuy ëmb bu ñuy nàmpal dañuy gis reegal kooka moom tamit boo gisee yéen ñett yoon reegal rek sa yedda ja jeex na su ko defee nag loolu lépp jar na bàyyi xel koo xam ne dafa yore jigéen gu ñu yore jorngel dafa dem ba gis reegal ga jot dagg na jigéen kon dara ji continue rek mën naa dem ngir ñàkk xàmme deretu jorngel jaag ju reegal ja mën naa am ba feebar la mën naa am naani doom yee koy waral mën naa am benn sabab waralu ko kooku dañ koy muñandikuloo bu ko waree ne ëmbut dafay muñandiko juróom-ñeenti weer bu paree mu yeddawu su ko defee ñetti weer muy xat loolu mooy nekk xatteem inna iddataha sannatu su ko defee kon nag bu leen xàmmeexee nag ci reetu reegal jaag ci jorngel ñooy ñëw te xàmmee na leen na yeddawu ca deretu reegal ja rek te bàyyi deretu jorngel ja xatteem jeex su ko defee kon nag jigéen a ngoog su yàlla dogalee nga fase ko waxoon naa la ko yaa ko war a jox tundu yaa ko war a jox dëkk ci faseem rajo yu ak buy koo xam ne dafa ëmb fekk ba muy sippee doom ja moo xam fase mu mën a doon ndax li ànd ak moom yaa ko ko jox sa deret la moo xam fase mu mën doon bu ëmbul nag ñu ne bu fekkee faseem rajo la wala muy bàyyim yow yaa koy dundal moom la alquran ne askinuhunna min haythu sakantum min wujdukum wala tudaaruhunna min wujdukum wala na tudayiquna li tudayiqu alayhina wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna suratu talaax ayaat juróom benn su ko defee nag su fekkee kuñ battal la waxoon naa la ko boo ko fasee faseem ñetteel boroom xam-xam yu wuute ci dëkkal ga ak dundal ga am nañu jàpp ne yaa koy dën yaa koy dëkkal waaye doo ko dundal ndax aaya ji dafa digle dëkkal waaye waxut dund muy askinu na min hasu sakantum min wujjikum waaye fii waxut fi dund fa mu wax dund rek mooy fa amee fa mu ëmbee fa anfiqu alayhinna xatta yadaana xamlahunna waaye kon foofu moo tax Malik ne yaa koy dëkkal waaye doo ko dundal Saafi ne yaa koy dëkkal waaye doo ko dundal su ko defee mu tegtaloo xadiisu Fatimatu bintu Qaysin Muslim ak Buxaari yu andi ko dafa ne sama jëkkër fase na ma ñetti yoon ci jamono yonantu ba waaye nag moom joxul ma dëkkal joxul ma dund talaqa nii zawji salaasan ala ahdi muhammad sallallahu alayhi wasallam fa lam yaj'al lii nafaqa wala maskana yenn riwaayaat ya nag dafa wax ne qaala innama sukuna wa nafaqatu man li zawjiha alayha rajaa am na ñu ne koo xamee ne yaa ko war a fayli kooku nga war a dëkkal kooku nga war a dundal waa koo fayliwut waroo koo dëkkal waroo koo dundal boo ko waa boo ko dëkkalee ci waroo koo dundal imaam ahmad abu daawud an moom dafa wax ne doo ko dundal laa nafaqata laka illa an laki illa an takuni xaamilan xanaa bi lu na ak ñu xëpp ci fuqaawu salaf ak xalaf loolu lañ gëm abu xanifa nag dafa ne ah, daal dëkkuwaay ak nafaqatu yëpp yaa ko koy jox moom moom mooma nga fase ñetteelu fase comme kuñ fay li ñooyam xatte ku ëmb yaa leen di jox ñaar yooyu yëpp Omar ak Aïcha ñoom dañoo weddi xadiisu Fatimatu bintu Xaysin bi moo tax kon ne ko da ko koo fase ñett doo ko dundal doo ko dëkkal ñoom d'accorduñ ci wérluwuñ ko moo tax Omar dafa daan wax ne duñ bàyyi téeréeb yàlla bi ak sunu su yonantu bi ngir waxi benn jigéen jigéen googu li mu wax ñun duñ ci compté wu wa qaala omar laa natruku kitaaballah wa sunnata nabiyina li qawli imraatin laa tadri hal hafizat am nasiyat xamuñ dafa fàtte la muy wax xamuñ timit da ko fàtte wala da koo wattu woon da koo wattu loolu kon ñun duñ ci duñ ci nekk su ko defee timit nag bi Omar waxee loolu Faatimatu dégg ko ci la wax ne ko bayni wa baynakum kitaaballah lan la mu ne qaala allahu taala fa talliquhunna li iddatihinna wa axsul iddata wattaqullaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna dëkk waay ñëw wala yaxrujna illa an yaatina bi fahishatin bayyinatin tuuti xududullah waaye na wa man yataadda xududallah faqad zalama nafsahu demeet mu ne ko nag mu laaj ko ne ko nag lan mooy xew luy sotti gannaaw ñetteeli fasam kon yooyu yëpp wax nañ ca lu bëree bari kon yeddawoo ngoog yow miñ fase boo gis deret ñetti reegal la yeddawoo ngoog yow miñ fase boo gisagut deret ngir ak ndawe wala gisatoo deret ngir ak mage saxatte na nga yëg ne moo ñetti weer ci weeri weer yedda ngoo ngoog yow mi ëmb sa jëkkër dee wala mu fase la faw nga am doom sa yedda door a jeex yedda woo ngoog yow muy ténj te ëmbuloo ñeenti weer la ak fukki fan yow mi fase tamit ki ngay yeddawu bàyyi ko mu dëkk ca kër ga buy fase mu njëkk dëkkalal buy ñaareel dëkkalal buy ñett dëkkalal buy fase mu njëkk booleel dëkkal ak dundal buy ñaareel booleel dëkkal ak dundal buy ñetteel dëkkalal waaye buy dundal loolu la imam malik gëm su ko defé timit bayiko mu dëkk ci kër ga bu ko xatal bu ko xoñoñal yow timit dëkkee fa dëkkeen ngor rafet rek xamal ngor xamoo lu lay defaat seen gannaaw su ko defee kon nag at yooyu yëpp ku ñu fasee si ko bàyyi xel ténj yi nañ ko bàyyi aada yu bari yañ ca dugal te lislaam xamu ko nañ ko wan gannaaw dañun ñëpp ñi bokk sukkandiku ci lislaam loolu mooy li ñuy dimbale ci àdduna mooy li ñuy dimbale tamit ci àllaaxira yàlla na yàlla defal ñu dégg yàlla nañu yàlla defal topp yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal ñu taysiir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu